salaamaaleykum mbokk yi nga xam te ne yéen saxoo di topp seen émission sunu yaakaar amaat nañu mbégte dellusiwaat fii ngir wéyale jukki bi nga xam te ni tàmbale woon nañ ko ci téereb euh, Matthieu mi nga xam te ni bokk na ci injil waaye laataloo rek ñu ngi def baaxanta rek di nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di ñaanal yàlla ñëpp ñi nga xam te ni dañoo tawat mu fëgg seen bopp yëkkati ci leen di ñaanit barkeb yàlla wàcc ci kenn ku nekk koo xam te ni yaa ngi déglu kàddu yàlla gi ak di ko topp di len wax jërëjëf ci seen teewaay encore jërëjëf ci seen takkute di wax leen wax rek ni mën ngeen ñoo bind mën ngeen ñoo woo ci numéro yi ngeen di gis mën ngeen it bind seeni laaj ak seeni xalaat ci suufu njàng yi nga xam te ni yéen a koy topp fàttali rek tuuti laata ñuy dugg tey ci sunu saar bu mujj ci téerab màcc ni li ñu mujjoon a jàng mooy bi Yesu, jàppee yeesu atte ko daan ko dee daaj ko ci bant mu dee ñu wàcce ko laxasaar ko si ay càngaay suul ko ci bàmmeel ni nga xamante ni noonu la ko yéesu waxee woon ak noonu la ko wax yonent yi tamit xamlee woon tey dinañu xool lan moo xew ginnaaw bi ñu daajee yéesu ba mu dee ba dugal ko ci bàmmeel Yeesu Christ dekki na gannaaw bésub noflaay ba nag ca fajar ga ca bés bu jëkk ca ayu bés ya Mariyaama bu Magdala ak Mariyaama ma ca des dem seeti bàmmeel ba fekk suuf yënguwoon na bu metti ndaxte benn malaakam borom bi wàcc na ci asamaan ñëw bërëng doj wa toog ci kaw melax ay yére weex tàll ni perkaal ñi doon wattu tiit bay lox daldi mel ni ñu dee noonu malaaka ma ne jigéen ña buleen tiit xam naa ne yéen a ngi wut yéesu ma ñu daajoon ca bant ma waaye nekkatu fi ndaxte dekki na ni mu ko waxe woon ñëw leen seet fii mu tëddoon te ngeen dem bu gaaw wax ay taalibeem ne dekki na te jiitu na leen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 ngir ñu bañ a ndax dañu jàpp ne taalibe dañuy ñëw sàcc néew bi waaye gis nañu comme ni ñu ko waxee rek suuf dafa yëngu malaakam borom bi wàcc bërëng xeer ba taxaw ci kaw doj bi ni jigéen ña doon ñëw yéesu mi ngeen di seet dekki na nekkatu fi dem leen na mu leen ko waxee woon kon gis nañ ni yeesu ginnaaw ñetti fan ci bàmmeel dekki na waaye keroog bañ ko daajee sa bant ba ay nit ñu ngi doon naan mën ngaa musal ay nit mën ngaa dekkil ay nit waaye mënoo musal sa bopp gis nañ ni yeesu dafa am lu mu ñëwoon matal si loolu moo tax la ñoo ñu doon wax la ñoo ñu doon toppe defu ko ndaxte su ko defoon rek li bind mu waxoon du mat du am moo tax mu def li nga xam te ni loolu la waaye Yeesu amul dee amul kàttan ci kawam gis nañu dee mënu koo téye dekk na sa ñetteelu fan ba ni ko kàddu yàlla gi waxee woon mu ngi dund da tey comme ni mu ko waxee rek sañ-sañ bépp jox nañ ko ko ci kaw ak ci suuf mu yebal ay taalibe bi leen dem leen sàkku ay taalibe bi naka la ñuy sàkkoo itaal mooy yëgal xibaar bu baax bi ñëpp yëgal ko xeet yëpp ñu nangu te gëm ñu soob leen ci ndox ci turu baay bi xel mu sell mi ak doom ji kon gërëm nañ leen sant nañ leen sunu jukk bi ñu amaloon ci téereb Macë mën nañoo sant yàlla ndax tàmbale nañ ko ci jàmm yeggale ko ci jàmm am yaakaar ni yéen ñi koy déglu ak di jàng yàlla dina si jaare xamal leen kàddoom barkeel leen te ñun tamit comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi fi mun ngeen ñoo bind mën ngeen ñoo ay laaj ay laaj bu ngeen amee bu ngeen bëggee ñu xóotal it mën nañ ko xóotal waaye di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla mu barkeel ñëpp ñu ngi leen di jox dax dox daje ci yeneen i ay bés ci yeneen i jukki ci yeneen téere tamit ba léegi ci biir kàddu yàlla gi ne yàlla barkeel jërë ngeen jëf